assumoo ma gis ne tit war dal ko biiru ci ni taxaw nii patine di lox mais asu sonn na nit ñi kenn wóorootu ko waxam nan la war a def ba jaxase leen nun laa def ba jaxase leen tay ndaxte démb dégg naa ko bu nekkee ci internet sinap bi tiktok bi instagram bi ñëpp mu naan la jour tabaski suñu dugalee sañse bi man ak njaago commentaire leen yàqal leen ma ko ko lu mel ni kacame lan ngay fecci man kontaan de sama xarit bi moo ma wóolee nga xam benn nouvelle bu neex